ay ca di yaakaar ne kon fa ngeen nekk taw mi jeex na en tout cas fii ci diwaan Ndakaaru mi ngi yebba yebbal ba léegi am na si ñoo xam ne dañuy profité nag euh, xëccaan mbàdd mi euh, mbàjj mi euh, defaat prolongation jàkkaarloo seen TV waaye lu mu ci manti doon ñun dikk nañu ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk ngir jox leen seen dose bi ngi di ci wàllum information monsieur le maire bu goxub Kumbam Lamb ànd seen monsieur le maire bu Géejawaay naka yow gi yow gaa ngi ma xool démb ah waa démb dama demoon jàll ji Mouhamed Samb. ah waaw waaw waaw. démb foofu bi ma jógee fii foofu laa. Ah, dem foofa nga jubal ndeysaan gis naa sunu maam si Yacine ndeysaan gis naa doomam yi ñoom Cheikh. ñoom ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla xare ko ci àjjana yi. allahumma amiin allahumma amiin allahumma amiin allahumma amiin. lu rafet ndeysaan. te Aliou Sow tam dañoo am suñ benn yaay bu fa. balaax balaax suñ dëkkandoo la. Hmm? ñu ngi fa nag dem ci. Adja nee na Mbaye suñu koñ. Mm-hmm. doxantu. waaw si Adja nee na Mbaye. ah c'est bien loolu baax na fi ñu jëm dafa laaj renfort. waaw ñun de moom. fi ñu mm-hmm. baaj ba gël tàppe. waaw loolu la de. Ah, kon baax na loolu la. doxantu nga ba yooyu yëpp. waaw waaw dama seetiwaale sama pap bay di sëy kañ nga fay dem. waaw waaw kaw daa faa gëj. ah dem fa nag dama a gis sax bay di sëy daal loolu nga faa mën a dem nag. <laughs> ñaanam du du ay fo. Béni Sèye Samane dama a gis de. kaamilam la yor. waaw nag gëj nañ déggante nag yàgg gëj naa koo dégg de. waaw gëj naa waaw moom est-ce que tey am gan yaakaar naa Ndeye Saly Dieng Diop day dem foofu de. da koy seeti ji. père Bédi Sèye waaw waroon nañoo mën a invité nag. wala rassemblement bi ngay bañ. père Ndeye Saly Dieng Diop est-ce que. rassemblement bi lay bañ. est-ce ministre bi tey du dem. foofu noonu. non xaaral xaaral rek li nga woo léegi nii benn. xamal ko nga laaj ko ba xam ndax. non non benn booy bu dëkk foofu noonu laay woo ci maison de la femme bi kër gi jàkkaarloo moom. ndax madame la ministre dafay ñëw am déet. ah pourtant mënoon nañu ñëw invité nag. waaye beer ah, nag. ñun est-ce que nañu invité sax. ngalaan ah xaw ma ñun nag ñun nag dañoo neex. te nga ñun aussi dañoo neexul di invité ndeysaan. ñoom ku xaritoo ñun sax ngay laax. ndeysaan lool loo loolu moo ci doy waar te pourtant nag wax fa dëgg neex yàlla. gis nga maam Boye Diaw nu mu ñu def. maam Boye Diaw de allo. waaw mon général. waaye maa ngi ni ma ni mais ministre femme day ñëw tey njaareen tey tey tey ah. noonu ñu ngi koy dégg <laughs> waaw ok waaw xam nga sàndikatu xeer yi kan moo leen di ku leen di invité léegi kii maa ngi koy laaj ne ko ndax Sali Dieng day ñëw rek nu mu ci yow de la pa mu ne ma loolu laa dégg nga ah, xam nii fii gis moom siège gis moom baas tamit yow ku la laaj ndax bâche am na fa ku la laaj ndax tànt am na fa non barki Rasulaay non mu njaay mu njaay mu njaay général moom mun a dóor xeer ne ah bon loolu laa dégg ah mais gis ma siège gis ma mais bu ñëwee mu dugg ci biir maison de la femme la bu ñëwee mu dugg ci rassemblement bi la ñuy bañ xam naa bu ñëwee mu dugg ci biir dañuy tànn as tuut rek bu ñëwee mu dugg yaakaar naa de ah man kay waxoon naa la ne tey la ah kon tey tey na kon tey na père père na mënoon nga ñëw ah déedéet père bay di sekkee bis ni ki tey moom dañ koy génnee ci ah non ah, bu ko ah non day génn sama papa day génn kër gi moom faw mu nekk ci baax ah, ah. ñaan gu ah, lu toll ni ab di ñëw sa dëkk. di ñëw géejawaay. njaboot gi war koo teewee. ak ni géejawaay toll yëpp yëpp permis di sëy donc donc ñuy tudd fii sponsor. waaw. mais mais mais man man sa la APR APR sponsor yi amul kenn. moom kese moo ci ne. waaw muy lu toll ni ab ministre de la république te waxuñu ko maa ngi yow. du yoon génn na mais nag suñu papa nga nag wax fa dëgg ne. xel bu ko génnee garaaw. waaw booy jaaw moom génnee nañ ko bu yàgg. moom Fata Amin léegi moo génne boppam. waaw waaw. xam naa ne dafa jékki-jékki mu ne comme dañ may génnee ko dugalaat rek naa toog. moom moo xam naa noonu yàgg yàgg yàgg. léegi kii nga war a. opposition. <laughs> opposition. opposition dafa métti. waaw ah, daaw dañaa waaw. waaw tons daaw tons daaw dañaa. daaw dañaa mooy maire. mooy maire daal. ak euh, Bamba Fall. Bamba Fall ngi fi voilà ñooñu daal ñooñu. ñoo fi ne ñooñu daal ñooñu daal ñooy ñoom la ñu jàppale. ñoo fi ne. waaw te état bi war leen a jàppale. kese waaw nañ la jàppale nag. ku fi bokk ci état di def ay réalisation man du ma safee. parce que c'est le train qui arrive à l'heure. waaye yow ma ne ñoo xam ne nekkuñ ci état société civile wala opposant ñu ngi def waaw ñooñu daal man. Ah. ñooñu daal ñooñu daal ah, dañ ñoo jaajëfal. waaye waaye ay ay. waay Tambacounda. buñ defee buñ defee bàyyi jàmm bàyyi jàmm. bàyyi jàmbur yow daal bàyyi jàmbur. non dama lay laaj nan la tudd. <laughs> monsieur le maire bàyyi jàmbur. Hmm? wala Sana Kande laa àndal. doo nuyu Samba Diobène Ka. non non non. <laughs> état la nuyu ma ko. war a nuyu. non ah, yow dégg naa da nga doon nuyu tey kii. kan ci. Eh, kii ministre Tambacounda bi. si Kaba. waaw non non non. laasana kooku kooku kooku. donc bagage laasana kan kooku chaque kooku. non non non non sponsor officiel loolu état la. xaaral ma la suñu benn waay waaye dama waneel mais kooku la muy def Tamba kooku nag wax fa dëgg neex yàlla ñoom ñëpp gis nañ ci seen bopp. wuyu ma kii kan la. Laasana Kande. na war naa teg ñetti carton. waaw ah, non déglu déglu ma si waaw non déglu déglu déglu déglu déglu. <laughs> ana moom moo si kan. waaw non déglu rek. non dama dama dama lay expliqué après dé déglu rek déglu rek waaw déglu rek déglu rek déglu rek. dama daal laata na laa bëgg a. non déglu déglu rek déglu rek après après nga wax ma kii la lay liggéey ci nguur gi déglu rek après nga wax la lay liggéey ci nguur gi dégg nga. kan moom mii. waaw yow kay non c'est que yow nag xam nga yow yow da ngaa naqaree. non damay laajte. da ngaa naqaree jàppale. damay laajte. <laughs> ah damay ah, laajte déglu déglu tabax école baax dañ koy jaajëfal damay laajte. waaw non tabax école. waaw loolu lu ah, merci lancé na. waa léegi ah waa léegi lan lay liggéey moom ci nguur yi. moom laa lay laaj. ah ah. ah. lancé na Kanté. mu lay lan lay liggéey ci nguur yi laaj ma la. lan la opposant ci nguur gi. xoolal Sall El Hadj Sanku Kanté. El Hadj Sa Sanku Kanté. waaw non dama ne laaj ma lan lay liggéey ci nguur gi. opposant la kon liggéeyul dara. comme ñoom Bamba Fall. ah merci Lassana. waaw yow daal liggéeyal lekk. bu la kenn yàqal nguur eh, waaye dama ne. dugub gi de xam nga ne kooku noonu. dama kooku kooku demal Tamba nga laajte. waaw yow ma dem ba Tamba laajte. waaye demal Tamba laajte seen. Sidiki Kaba mi nekkoon fi avocat Karim mu dem ci Macky. kooku mooy borom Tambacounda nekk nii. <laughs> Oh, waxuma loolu de dama ne. <laughs> Sidiki Kaba. jam wiiree bi man. bàyyi jàmbur bàyyi jàmbur. avocat wu Karim jékki-jékki wiiri far ci ñiy songu Karim. Sidiki daal moom xoola. wax fu dëgg neex yàlla am dara luñ ko waxal moom ñi ñi ñi tudd ci réew mi sax ci ay détails moom bokk sax fu dëgg ah, neex yàlla nañ ko jaajëfal. léegi nañ dem bàyyi jàmbur <laughs> moom daal sa waay. yàlla baax na képp koo xam ne sa alal nga yor. di tabaxi école. waaw dimbali jàkka yi. def te yàlla dimbali saa yi def yàlla tax wala nga nekk ay maire opposant ñoo xam ne. waaye koo xam ne suñu alal ci boppam lañ lay fay. nga ci liggéey bu weer wi la ci nga koy doo fi amee problème ko laal la ko laal laay cheval di defee. laal la waaw voilà. waaw moom moom fa dëgg neex yàlla. xam nga tey moom juboo nañ ci kooku. ay kooku juboo nañu kooku kooku juboo nañ am laa laay cheval juboo nañ. yàlla baax na voilà jubóo nañu. <laughs> dégg nga groupe des médias. trafiquant drogue bi nga xam ne journaliste yi nekk ca boppam cap si këriñ kan la. si boppam dafa mel ni carte gii dëpp léegi ñu ne taskatu xibaar ban xeetu xibaar lay tas. xanaa ay enquête la daan def. terminé ci. Mm-hmm. ah jox ma tonton. waaw tey tey tey nag tey nag euh, Kaolack dañoo am dëj bu mag. Fakaay xalif si xalif waaw waaw Baye euh, euh, El Hadj Khayre Touré. Hmm. waaw bokk ci waa Darou Douane Medina Salaam. kon dañoo nekk si tiis waa Kaolack. wallaahi ndeysaan ñu ngi koy jaale bu wér a a wér. ñu koy jaale bu baax. Baye El Hadj Khayre. Hmm. ñu ngi koy jaale sama waayu baay boobu. billaahi ndeysaan. Hmm. dégg nga terminé yéen a kaay ñëw ak ñun ci autorail ba ca Thiès. xanaa daa wàcc raay woon. du ma moom. dégg kii moom yëg na raay bi moom. kii kay dégg autorail daal sa waay moo fa daggate benn waay. Hmm. waaw lu doy waar. corona ji nag quarante une nouvelle contamination cas communautaire. yu bees cas communautaire rek ñeent fukk benn. quarante et dégg Babacar Ngom Sedima dellu na hmm. nawet bi di jeex. kon baax na. loolu de. dëkkandoo jàmm jëgën dégg dëkkandoo jàmm jëgën. Walfadjri ci Dakar dem dikk. Hmm. ca procès lañ jëm de ah boru ñeenti téeméer ci ay millions laa la wax laa am yee Dakar dem dikk Dakar moom baa mi ngi quotidien nañu gis nga ko jël terrain jox ko ay privé doo ci boole askan wi gis nga euh, état bi nag boo xoolee ba ci biir coow yi di am nii ñoom sa complice lañ cay de ñoom am nañ ca waaw ñoom ñii hmm. dégg nga source a ñëw ñun ci njaayum ngànnaay gañ doon wax démb ca Touba hmm. gis nga loolu coow bari na ca Touba ñaari adjudant ak benn lieutenant sûreté urbaine mu Ndakaaru yónni nañ leen ci diwaanu Touba am na beneen yoo xam ne fi nekk nii tegati nañ ko loxo. teg nañ ko loxo. waaw suñu góor gaa ngi nii góor ga ca Ndengaleer. ndeysaan maïs taal Abdoulaye Dior ngi nii de. maïs taal mm. Sall delloo na terrain ba waa Ndengaleer delloo nañ leen seen suuf donc soog li ni dëgg la Macky Sall kay delloo na suufu Ndengaleer. Mm-hmm. en attendant nag ñuy am absolution définitive amaguñ ko de. Mm-hmm. ah déedéet. yàlla baax njiitu réew mi kay moo bëgg a calmer xam naa esprit. maa ndax dal waaw waaw kay waaw kay. dégg nga. Mhm. l'observateur monsieur le maire ci. gis nga wàllum koom-koom mhm. dëkk bi fi mu nekk nii comme màggat mu feebar. juróom-ñetti boo ci laal day ay métti. perfusion. fépp fépp tous les comptes eh. bi ci biir réew mi ak ci bitim réew. dañoo dëgmal événement de. bor bi ci biir réew mi bi ci bitim wari gasi. xale bii nga xam ne dañ koo takkoon nag. dañ ko. démb xale bu jigéen boobu ñu doon ah, filmé ci internet vidéo bi. naan da doon sàcc ak dugg na fii génn fi. waaye leen rek. yaa de du de. monsieur le maire. Mhm. Abdoulaye wu car quatre cent millions. ci yàlla. quatre cent millions ay kit de production d' énergie la solaire. Mm. équipement d' intervention. ñu ne ministère bi jox marché bi ab Pico Mega nga xam ne ci wàllu informatique ak ameublement lay yëngu ñu dem jox ko léegi production énergie solaire. Mhm. dëkk bi dëkk bi dëkk bi. tey baax na. las ci ngi nii sàcc filmer ko jàpp ay weenam di ko bës. naa ne dafa am ñu feebar bi daal tooñ nañ ko. waaw tooñ nañ ko civil nag jéebaane nañu ñi def mbir mi. déedéet forum civil kay ñi ñuy jébaane mooy waa Orix ñoom Abdou Karim Sall. Ah, dibi ji waaw dibi ja waaw. évidence seen i kaay ñëw ak ñun ci ndey sali seen Diop. Hmm. nee nañ ma ngay relancer nañ unité économique du secteur informel moom de comme que day dem géej waaye te invité wu ma. kon yow yëgoo ko nii. sama yoon nekkul ci kenn invité wu la. ndey sali géej waaye. tëjal buntu yi demal dégg bateau bii nga xam ne nag fi mu nekk nii moom la Sénégal loué. mooy courant waa ànday ak ñii sonn nañ de xëy ñii sonn ñi ñii ñii mu taxaw seen géej gii pétition daal lañ bëgg pour jëlee ko fa. na leen abal waaw. ndeysaan tànku jàmm yi gars doon ndox tàbbi na géej de. ah. waaw Malick Gadiaga war nañoo indil démb. waaw. ah yi démb la la andil. waaw. da jeerax. jeerax kay. <laughs> ana làmb ji. ah kii Moussa la làmb. ji làmb ji làmb ji est-ce que euh, làmb ji sàjj na nekk sa làmb ji sàjj na voilà. GPS. Mm-hmm. ak pêcheur artisanal. ah ndeysaan ak sunu xarit. waaw coowal licence de pêche déet suñu xarit woon. <laughs> na dem rek de la pêche Alioune Ndoye. waaw yow moom sa waay la. nekk <laughs> yow da nga xaritoo <laughs> bu doon guro la da ko xar ñaari. ah xar na ko ñaari ŋàdd. waaw waaw waaw mu ngi nii. ba mu sànqee la waaw waaw suñu père Kora Fall. waaw sunu papa ji dañ koo gëj a dégg nag Serigne Pape Malick Sy. sunu papa la Pa Kora Fall ñu koy nuyu. libération monsieur le maire ñëw ak ngeen ci li ma doon wax léegi. Mm-hmm. ndaw si ñooñu doon ko filmer ah te xale bi kat dégg na ndeysaan dafa feebar sax. Ibu tey mii Babacar N. abu nag moom daa daw mais abu nag moom nee nañ moom. moom moom moom moo def yu doy waar a doy waar sax moom. bi tam day wàccee waaw moo ko tax a daw. waaw ah moo ko tax a a ah, daw fii de daw ma dama xam ne foo rëcc. def na mbir nag waa léegi Tapha Tine nii. Hmm. dafa nekk en danger digganteem ak booy Niang de wala. ndax lan. ah làmb ji ñu tëgg ñoom ñaar kan moo ci gën a risqué. ah. ah. kon làmb ji dafa commencé saa jam ah tëgg nañ ko. tëgg nañ ko de. mu ngi nii de après son échec. ah. yaay ah, ah amateurs yi pour pourtant sondage bi def dee amateurs yi amateurs yi booy ñaar la gis ne dugg na ni ruba de. Tafatine nag sama waay la de. ah. ah, ah sama waay la. de. ah dañuy déggante de Tafatine. ah bon ah waaw. ne du may déggante. <laughs> day xanaa. mbër maa ngi lay nuyu bu baax waay Tafa. booy ñaar bu baax. léegi foo farma farfa ca des booy ñaan sama taalibi la waaw ñun sérif yi pourtant ñoo bokk kan de maa yow nuñ bokkee kan ah bokkuñu kan bokkuñ kan de <laughs> ni mu ñuy ëppale man kay léegi foo farma farfa ca des <laughs> au moins pour la ñoo bokk kan booy ñaan deux ñoo bokk banlieue bi mm. ba pare muy sama taalibe mm. waa kër Cheikh na la waaw ah léegi la moom nga wax wuy ma bu mu la ko bu mu la kor. xatar bi. li koy daan moom man xam naa ko. def si nooju. wuy ma. tequm biir. wuy lii lay bañ. kuy def bii. dafa til bii bii lay bu defee boo ko defee ni defal ni baaraam yi. wuy ma yaa ngi fàttaliku lii. Balla Gaye. non le maire amul. <laughs> dafa ne nañ leen may foo leen defee nii. na lay bay. damaa ah. lay bañ. ba lay bay. ko boo ñaan nar a def rek ko tiix. jaajëfal ay jëf Mouhamed Mbaye FM Sénégal ñu koy jaajëfal sama xarit bi allez tout de suite ma dikkaat jukkil leen xibaar yi.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 rafetlu ànd beex euh, Sen TV mbokk yi dal leen jàmm si biir jotaayu xibaar ñu fës kenn ka door ak wàccaayu ko tabaski ji jëwriñ ñu dénk wàllum sàmm gi euh, doxantu woon na ba foofee nga xam ne moo di Ngunjaan sa diwaanu cees la féete xool tolluwaay xar yi ndax euh, lépp dana mate ñu nga xam ne ñooy waay jëndkat yi mu mel ni kon xel mën na see daal bu ñu sukkandikoo ci sàmm njóobeen kan ndax nee na si diwaanu cees rek lu mu gàtt gàtt lu toll si téeméer ñaar fukki junni ci ay xar jot nañu leen fa rek wàññ ñu teewlu ay kàddoom beneen bi mooy di rafetlu li nga xam ne fekk nañ ko fi mais di sant yàlla également lu tax loolu nee na daaw ci bii heure ci région de Thiès ñu ngi tolloon ci ay cinquante huit mille têtes tey ci tey mën naa ne ñu ngi toll ci cent vingt mille têtes à J moins onze comme démb. situation su melee noonu nag différence plus de soixante mille têtes ci benn région am nañ njort bu rafet que tendance bi su continuer nii xëy na xar dana am ba ñëpp jot ci. desandi yaax bi ndax mu ngay sàkku ci askan ni ñu teel a jëndi xar ndax euh, fii jàngoro ji toll day bañ ñu xaar ba waxtu yu mujj ñu dem di buuxante euh, sa dara li te loolee jàngoro ji mën na faa du xelaw ñu teewlay kàddoo moom Samba Ndiobène Ka. parce que nee naa période Covid 19 la ñu nekk am na lu bari gënul ci période bi ni ñu tàncaloo nii wax dëgg fi yàlla gënul y un minimum de distance à respecter moo tax aussi bëgguñu à deux jours de la tabaski. consommateur yëpp di fa dajaloo suñ fa dajaloo yàlla xam ku koy indi foofu su ko kenn jotee mën naa yaatu te kenn bëggul à deux jours de la tabaski ngay jëm ci tabaski am yenn feebar yi non seulement yow dañ lay quarantaine mais su famille yëpp su répé duñ génn kon yàlla nañ ci yàlla musal parce que dañoo nekk ci contexte boo xam ne contexte bu metti la leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di coowal Ndingler ak Babacar Ngom bu Sedima mu mel ni kon nguur gi jot naa jëlub dogal gannaaw nag ba ñu gisee ni waxtaan wa dese na am ak jibbo daal di nag euh, gannaaw ba ñu waxtaanee ni ki démb bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëru ñu dénk bi réew mi mu ngay sàkku euh, ci euh, baykat yi moom jiitu réew mi ñu dem delluwaat sa tool ya Babacar ngoom dakkal liggéey ba ba nawet bi jeex ñu xoolaat na nu waxtaanee ñu teew lay kàddoom moom Aly Ngouille yi jël comme décision mooy néga ni moom na arrêté liggéey bi muy def foofu ci tool yi mu bàyyi baykat yi ñu dellu ci tool yen daan bay ci at mi comme ça bu fekkee dem nañ ci tool yi ñun dinañ continuer natt bi ñuy def comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen te wax ko également samedi mooy waxtaan bi ñuy am dañ koy continuer ci ñeenti weer yi pour que yàlla defee ba fii ak nawet bi jeex danañ mën a am solution boo xam ne bii maanaam dootu doon solution bi négandu ko day nekk solution définitive pour que ñu xool kenn ku ci nekk bu ñu génnee ci nawet bi fan nga a jëm loolu moo waraloon nag donc wax dëgg yàlla bi loolu amee ñu waxtaan ci mu nangu ko waxtaan ci également ak village bi ne leen nag ku ci am looy ji bu neex yàlla bu subaa mën ànd ak sa njaboot nga dem ji sa tool kenn ku nekk ci ñoom xam na fa mu tàmbali woon xam na fu toolam yem am nañ yaakaar ne bu ñu ko defee déjà au moins pour nawet bi pour euh, paysans yi baykat yi mën nañu sauver seen nawet également jàmm dikk ci foofu ci ci ci gox boobu la leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di euh, coowal ngàndaa yi ñu doon bëgg rawatle foofee sa diwaanu Touba ba ñu teg loxo mu mel ni kon l'enquête ba ubbi nañu ko te door nañu ko ñaar ci agent yu commissaria bu Guy mind ax nag sûreté urbaine euh, ñu bawoon diwaanu ndakaaru yebal nañu leen ngir nag euh, ñu daal di soobu ci l'enquête ba baax sax am nañu ñu teg ay loxo mu mel ni kon trafiquant ba nga xam ne moom lañu sa njëkk teg loxo ci gaaw bi sa këram ba ñu fa doxantoo sa Madiana 2 manees wax ne jamono ji moom it koy déglu euh, sa euh, commissaire de police bu nguy euh, mbind sik fàttali Euh, lu ni mel nag euh, ay euh, bokk na ci ay ngànnaay ak yenn ci ay munitions yu nga xam ne jot nañu ko fekk sa këram waajoojee nga xam ne la ñu teg loxoom la ñu teg loxo ci ndax coowal ngànnaay yooyu ñu doon jéem a rawatlee sa diwaanu Touba Touba la ñuy desandi sa marché Ocass ñu gis ne kon foofee yenn saay boo fa bëggee ngànnaay man nga ko fa am la bëri ci ay ruq yu nga xam ne ci loolee la yëngu jaaykat yi nag du kenn ku ci bëgg a wax ni diw moo say yëngu am déet lu mu ci manti doon nangu nanu ni boo fa bëggee ngànnaay da koy am ñoo wutali sa marché Ocass fekk fa Abdoulaye bu tedd bii di Touba njaayum gànnaay mi mel ne tulleeg màlle. arme tëgg am na fi arme tubaab am na fi. dañoo jaay ay arme ak yooyu. du lu rafet du lu gën. kenn ku fi ñëw ku ne rek da war raw mais waruñ fee ñëw ba pare ñu ñu fi sonal ñu dégg ne marché Ocass ñu ngi fiy jaay ay arme. doon lu doy waar. saam ay arme ci mbedd mi mel ne kuy jaay keccax wala kaan yi moom vraiment maa ngi koy ñaawlu te ko di ko du ma ko benn yoon. ngi rey mag ñi di rey gone yi. dangay liggéey sa liggéey ñu agressé la jam la wala ñu rend la te du mujj fenn ñun daal ko ñu dimbali lañ bëgg ci tuubaa gi. nii ñu ciy joxoñ baaraamu tuuma ñi ŋànk nguur gi ne ñoo war a dakkal lu ni mel la. ministre de l'intérieur mu jël ci ay motuwaay ba képp koo xam ne jàpp nañ la ak arme daan yi nga xam si ni yoon wax na ko ñu teg ñu teg la ko ba ba mat sëkk. bu ñu sañoon nag autorité dëkk bi ñi nga xamante ne bii ñoo yilif dëkk bi ak ñi nga xam ne bu ñu waxee ñu dégg leen. ñu dimbali ñu si. jamono yooyu le kenn ku ne saw fit nekk sa digg bopp ba tax na nelawatoo ba yandoor. su fekkee ne fu waay jóg ñu jaay la arme pour nit ki am arme bu mu agressé day yomb te ñun ay taximan lañ amuñu doole ñun duñu yor arme chauffeur rek lañ yor la ñuy toog booy dawal soto ba mu yàgg nit jël arme da ngay taxaw. ñu jàpp borom arme yóbbu leen fu ñu xam jëm ak ñoom. ndax buñ ko jaaroon kon duñ ko jege bay rey nit ñi. lu ni mel tax takk der yi jatu ne succet fas yéene teg loxo ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon ak njëndum ngàndaay ci dëkk bi di Touba Mbacké ñu àddu jëmale ci euh, appartement yu Bibo Bourgi nga xam ne tegoon nañu ko loxo di appartement Eden Rock tey jii nag lañu ko fas yéenee jaay ni ko rek euh, euh, maanaam sàkko woon jëm ci arrêté bu numéro 2 2015 bu 23 mars 2015 ëttu ab bi di CREI mu mel ni kon jàppale ni it laaj bi samp kay moo di Karim Meïssa Wade ci boppam ani ani moom it fu muy mujj yaax la nga xam ne jotoon nañu ko teg loxo ni ak moomeelam ndax lañu ko doon tudd dañoo wax ne moom ci boppam moom moo ko def def ñu ànd a Seex Fatou Abdou Ndiaye nguuru Sénégal mi tegoon loxo ci am amu bi boo Bourgi dafa fas yéene jaay li nga xam ne mooy Eden Rock di ab projet immobilier bu nekk ci centre ville bu Ndakaaru ak ay appartement yu yànji lool appartement yi nag toll na ci juróom-ñaar benn bu ci nekk daañu ko jaay ci six cent cinquante millions direction des impôts et moo joxe xibaar bi wax ne dañuy jëfee la nga xam ne moo tukkee ci cour de répression enrichissement illicite mi tëj ci homme d'affaires bii di bu Bourgi juróomi ati kaso ak ndàmpaay yi ci cent trente huit teg ca nag lépp luy alalam ñu teg ca loxo kon loolu nga xam ne moom mooy bien yi dafay dugg ci domaine privé bu nguuru Sénégal lu jëm ci nag jaayu appartement yi daanu ko door ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet te it daañu amal sax visite pour képp koo xam ne bëgg nga jënd ci appartement yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet di alxamis gii lenn rek la ñu bari tey di samp laaj mooy lan moo tax nguuru Sénégal di yàqamti jaay li nga xam ne mooy alalu bu bourse yi te ka ñu njëkkoon a tudd ci mbir yi ñu dippee ko principal accusé di Karim Wade ba tey ay amamam kenn laalu ko te moo ne Karim Wade moomu la ñu ko daan moom la ñu daan bi bu bourse confiscation de biens waaye ay biens moom ba tey kenn laalagu ko. ayca mu ngook ñu àddu euh, euh, jëmale ci li nga xam ne euh, moo di wàllum yoon ndax nag waxtaan wu nga xam ne doxoon na ci diggante jëruñu dénk wàllum yoon ndax nag secrétaire général bu SYTJUST syndicat bi liggéey kat yi nekk ci wàllub yoon ñoom nag amal nañu ak ndaje ba nga xam ne ni waxtaan déggoo lañu su jublu te nag sookoon waxtaan ba moo di que jiite conseil bu dialogue social innocence Tap Ndiaye dañ si dikkaat si sunu yeneen jotaayu xibaar jaajëfal leen bu baax ci teelu bi bi la jotaay xibaar fii lanu ka ndar keppe 8h30 seen émission suba teel lay doon ndax sama ñam yi àndal 10h ma dikkaa ndax waa ministère la la santé ñu def ak taxaw seetlu ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal kenn la ak jàmm ma leen koy ñaanate di ko sàkku si yéen jaa jëf asalaamaaleykum mbokki téléspectateur u sant bi rawatina yéen auditeurs u Zik FM Zik FM rajo kado rajo leader saa bu ñu xëyee di ko dëggal at mu ñu dugg rek événement bu ñu mënte am Zik FM dafa dugal loxom Sen TV di fa dugal loxom waaye nag mboole seen day médias di dugal loxom bu ngeen wootee ci 88 628 89 90 Olof Ndiaye nee na dige bor la ñàkk ko jëfe wor la te nag boo ko jëfee gor nga loolu ñu fas yéene dëggal ak suñu askan wi di leen ñaanal tabaski jàmm ñu fas yéene leen jox seen xarit tabaski di leen ñaanal tabaski jàmm ak rajo Zik FM. Adja ki Kine jang Liberté 6 la dëkkee moom ñëw na pour jël si xaram. yéen da ngeen social. macha allah bu dul lii sax lu rëy gën a rëy lii ngeen di def. yàlla dafa defoon dama jëndoon ñaari xar yëpp dee.